والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلى ابتغاء وجه ربه الأعلى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 alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraata almustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad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 alam yajidka yatiman fa aawaa wa wajadaka dallan fa hadaa wa wajadaka ailan fa aghnaa fa amma alyatiima fala taqhar wa amma assaa'ila fala tanhar wa amma bi nicmati rabbika fa haddis allahu akbar سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر allahu akbar allahu akbar allahu akbar